nañoo gàmmoo ren mooy daayira Moustarchidine wal Moustarchidaat euh, ñu ne Serigne Moustapha Sy euh, moom joxe na ndigal ci daayira bi ñu fas yéene amal li nga xam ne mooy gàmm gi ma Maxari Mbay mi nga xam ne moo amee nag euh, jokko gi ci daayira bi wax na ne nag dinañ amal gàmm gi waaye dinañ fexe ba sàmmonte ak digley fajkat yi dañu déglu ay kàddoom moom Maxari Mbay El Hadj Njogu Jën ma ko indi. Serigne Moustapha Sy jox na comité d'organisation bu daayiratul Moustarchidine ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk ci daayiratul mustarchidin wal mustarchidaat yi ndigal ci ñu waajal euh, gàmm gi incha allahu na mu ko daan defee ca champ de course ci guddi gi nga xam ni moom la ñuy célébrer juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs samedi bi le 17 mooy journée de nettoiement bi nga xam ni ci lañ di euh, set setal euh, champ de course bi nga xam ni fa la ñuy fas yéene defee gàmm gi incha allahu ci teewaayam. xam ne ne gàmmu ren gi dafay am ci jamonoy euh, mbas yan matuwaay ngeen fas yéene jël ci wàllum euh, wér-gu-yaram ba benn loraange du am. waaw fi mu ne comme ni nga ko waxee day nekk euh, ci contexte de crise sanitaire mais incha allah lépp loo xam ne mooy matuwaay ñi ngi jéem a sàmmante ak moom ñi ngi ci yee. njaboot yi nga xam ni ñoo nar a jóge ci région yëpp xam nga ci wàllu boobu y a une équipe euh, médicale boo xam ni daanaka une cinquantaine de médecins yoo xam ni ñoom it avec des ambulances ak yëpp euh, jël nañ ci les devant ci côté sensibilisation bi ci côté respect mesures barrières yi lu jëm ci masque lu jëm ci gel lu jëm ci yooyu yëpp daal ñu ngi ci xalaat déjà am na ay réunion yoo xam ni def nañ ko ci ak yeneen yi ñuy waajal pour que daal ñu xool rek naka la ñuy